man ah. affaire ma seetlu ko dafa mel làmb ji mu ngi jëm côté Tëngéej oh. euh, dëkku yi waaw parce que dafa dañu am espace ku mel ni un un sama mbër mi nekk Kayar ah genre mbër yooyu damay fàtt tur bi la jam tëri ko waruñu ko fàtt si làmb jam tëri ñooñu waruñu leen fàtt si làmb ay ndaanaanu mbër a ngi noonu defe di bariwul gis nga xoolal combat am ak Jet ku koy seetaan daaw c'était bokk na si combat yi dàq si saison bi combat bu neex stade bi fees dell. Mm-hmm. làmb foofu la jëm ñoo moom làmb ay sàngal kaam ay kayaar ay boor yooyu. Mm-hmm. ay sëbi xotaan parce que ay champion fa nekk dañoo am espace. Mm-hmm. dañoo am ay dune. ñun suñu booy dañu jóge fii dem ba ay Malika ak yooyu. di wuti ay dune parce que fii yëpp def nañ ko ay terrain. amatuñu espace. au niveau de Dakar banlieue amatuñu espace. da ngay dem géej gi di daw booy topp la ndiiraan la. mu il faut nga dem fa am espace. moo tax booy di dem ay États-Unis di préparer wu en France ainsi de suite parce que amatuñu mm. mm. la entraînement nan lañ Sénégal day entraîner di di def natation. dëgg la boo géeju caaro yi. mu entraîner ba pare defal la ay natation. Mm. c'est un grand champion un vrai lion ngi noonu. macha allah fii ak cinq ans. wala quatre ans ñenn yan a ñooy ñooy téye fii ak cinq yan espoir nga gis fi yoo xamante ne am nga ci ñoom yaakaar bu baax a waaw am na am na ay boo yoo xam ne kose woon naa leen mais question bi xaw na ma bett mais gis naa ne si sa làmb ji bu doxee ñooñu ñooñu mën nañ leen mën nañ leen bàyyi xel. mënu mm. ma jékki-jékki rek wax nii tur balaa may def erreur. mais am na mbër yoo xam ne coché woon naa leen. yoo xam ne ndaw ndaw yi mais tey jii catégorie ñoom franc bi ñoom seen. Mm. man moom làmb moom ah ma dee rek peut-être dina am ñu mu neex ak ñu mu naqari mais làmb daal si loxo rëg-rëg laa gis. ci lay mujj. waaw gis waaw li ma gis. ah si loxo rëg-rëg daal laa ragal mu mujjee quoi. xaw ma nag yàgg nga wax loolu de. ah man de yàgg naa kaa wax man de depuis deux mille xaw ma kii daal maa ngi koy wax rek. rëg-rëg daal gis naa ne làmb ji si loxoom la du ma si varié du ma si mu nekk roi des arènes buñ ko buñ ko nangoo di jël. Ah, mu nekk roi des arènes noonu la laa ko waxee buñ ko nangee jël Modou Lo nangu ko jël Ama Balde nangu ko jël Bombardier nangu ko jël ak ñeneen ak ñeneen ñu bañ a nekk di xaritoo ay ñoo xaritoo nii. Hmm. dina nekk roi des arènes. moom kay wutul xarit moom. waaw te moom wutul xarit dina nekk man daal si làmb moom si loxoom laa ko mujjee xaw ma nag lu yàlla di def. Hmm. wala moom mu bàyyi li mu doon def. Hmm. waaw mu bàyyi li mu doon def. bu ma demee ba gis yaram bi commencé xees. ma génnee si moom. waaw bu ma demee ba gis yaram bi commencé xees am xees xees. ngay diw yooyu affaire bi di niin. ngay leer dinaa si génnee sama xel. mais tant maa ngi gis nii. waaw traits ñuul kuk. Hmm. ah muscle yi saillant. di xonk bëri ah ragal naa ko mu bàyyi te bàyyiwul lu mu doon def. Uh-huh. gis naa ne dina dina téye làmb ji daal.